Cheikh Diba mooy patron bu bees bu departement bu finance et du budget ci gouvernement bi nga xam ne Ousmane ko moo ko jiitee Cheikh Diba inspecteur des impôts et domaines nekkoon ba biñ koy nommé directeur de la programmation budgétaire ñu ràññee ko lool mu jege njiital fa moom Cheikh Diba bokk na sax ci ñu doxotaan wi Ousmane Sonko seekoo nag njiitu réew ma woon di président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Yérim Seck mu waxoon ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu weesu ci plateau l'invité de MNF. mais Macky Sall ak Ousmane Sonko waxtaan wu xóot lañ seq xam ne mi ngi jaar ci Cheikh Diba moomu. cheikh débat boobu ci daaw da Diallo la jaar waxtaan woow moo indi da tey nii ñu ñu libéré euh, Macky Sall xëy suba def rapport ñu toog ay fan dégguñu Ousmane Sonko wax ci loi d'amnistie bi ñuy waaj waxtaan woowu am na yeneen ak yeneen yu ci bokk yoo xam ne histoire dina dem ba Euh, protocole di Cap Manuel dina dina gën a waaye ci diiru ay at moom mii daal dinañ ko ràññee ci liggéeyam mu am daanaka fukk ak juróom-benni atu expérience ci domaine bu finance publique fii ci Sénégal daan liggéey comme vérificateur bokkoon ci unité opérationnelle bu administration fiscale bokkoon itam ci direction bu recouvrement nga xam ni daan na fa amal liggéey bu am solo doon fa teewal itam comité hebdomadaire bu suivi des recettes moom Cheikh Diba daal dina itam amoon ndombal tànkam conseiller technique bu direction générale du budget ca jamono jooje daal dina bokk nekkoon na ci luy doxal réforme budgétaire yi nga xam ni daal dina tukkee woon ci UEMOA ci atum 2019 ci njeexital gi daal dina nekkoon itam conseiller technique bu ministre des finances et du budget doon doxal bépp projet boo xam ni nekkoon na ci plan Sénégal émergent bu ancien régime bu Macky Sall doon coordonné itam li ñu duppee programme économique et financier bu tukkee ci fonds monétaire international di FMI